délégation bu mag ñoo demoon jëli Astou Guèye mii nekkoon ci APR di yëngu ci Daaru saw demoon nag ànd ak Birima Mangara Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké faat ma ak ñi mu àndal bi ñu koy jëli nag moom nangul na leen ko boole koog nii dem na waaye xolam demul woon. naam ba may dem sax gënalu ma woon ndax yu baali ma woon sama xol sama dëgg rek laay wax te yàlla tax ndax man lu ma mënti am APR ma ko gënal waaye ba may dem gisuma xooluma damaa gëmm samay bët rek dem. Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma reconnaître taxawaayu Astou Gueye mi si biir Benno Bokk Yaakaar si capacité de mobilisation ak ni mu amee ginnaaw ne nag ku ni mel war ñu ko bàyyi mu dem. suñ tànk yi du dara lu xam sa dayoo xam sa taxawaay moo tax nga jaral ñu jóg man xam naa la da ñëw da ñëw ci man waxtu ma xam itam li nga man xam mbooloo mi ci sa ginnaaw. xam itam borom mbooloo yi nga xam ne xam nga leen tax nga man ci ñoom dara ndax bar na ñoo xamante ne bi ay borom mbooloo lañ da maa boole ak ñoom te bas naa seere li ma si gën a rafetlu kenn ci ñoom daal ginnaaw bu mu génnee kenn ci ñoom daal dikk mu ne ko am ah, man kat dem waaye nag yow demal ki sëñ Abdou nga wax ak moom directement xam mënoon na ko fab bi sax yóbbu ko fa yóbbu ko fa mu nekkoon waaye def ko loolu day acte bu rafet kon ñu ngi lay sant la di la gërëm. di am mbégte ci ñibbisi gi ñibbisi biir kër eh, lammiñ ak bëñ ñoo dëkk léeg-léeg ñu laale réeroo day am waaye tim wolof ne réeroo amul ñàkk waxtaan moo am foog naa bi ñuy waxtaanee gind koo dañu eh, moo tax daal dañ lay sant di la gërëm di la xamal ne ñibbi si ñibbisiwaat nga si biir kër. moom Astou Gueye nekkat la mu bëgg mooy reconnaissance. ñu jox ko cëram si biir partie bii. bëgg naa daal ku ma yëg ku ma jox cër ko xam maay kan lii nga def nag firndeel na lépp. li ma doon jooy mel na ni dina faju samay wax nag mënut a bari ndax sama sama xol dafa sedd ndax lii nga def dafa rëy ci man. Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma ministre conseiller nag li si bi gudd na te du jeex ni ko asugay defee ay ñooñam noonu lañ koy defee dellu si waat seen kër muy APR. li nga def yaa njëkk taxaw def déclaration waaye mën naa wax ne ligne bi fees na dal ñu baree baree bari nii nga def danañu ko def ndax dem nañ ba xam ne ci ay erreur la ñu leen dugal ñu ci bari te képp ku ci man dara képp ku ci am dayoo bu soobu yàlla am na tànk yoo xam ne dañ ko dox ko doxee dana dana sotti. Bassirou Diagne bokkoon na si délégation bi ne kat dund nag yar seen kuy ba mu màgg 12 ans mu ànd ak ñoom di liggéey ñu xëy suba ñeneen di koy jël di koy taarale seen bis si ay kàddoom ne kat loolee ndaxee mbaay dong la nii la ko birale moom Bassirou Diagne. liñ bëgg sab image lañ soxla asugee am na dayo bi mu am nañ ko jël boole ko sunu image pour wan ki mu jëm ne ko kii kat nit ko am dayo la pour defar seen bopp waaye ñoom boo xoolee yow ak ñoom yow fukk at ak ñaar yaa ko bokk nekk ci parti dañ laa mas a démbali ci ñaar dërëm kon ñu la jëlee di yóbbu fenn kay jàpp naa ne seen bopp la ñuy mottali rek waaye mënuñu laa jariñ dara en tout cas daal man dama koy jël seede ci kanam sëñ bi sëñ bi moom gëm naa ne tànk caaxaan yëkkatiwu ko bi ñu njëkkee seede bi mu njëkk a def ci yow dane ma Astou ëpp naa ñàkk ndax jigéen ju am taxawaay la xam naa ne ku man dara fam dëkk la ku man dara nag da ànd ak ñi man dara waaye ñii di leen jël fenn fu ne ñu yab leen fa yóbbu dañuy wax rek ubbi permanence dajale ni ñi coow rek waaye fenn lañ leen jëmewut te yow li nga tàmbaloon ci développement tey ji yàlla am na bunt yu muy ubbi sëñ bi xëy na bu jëlee kàddu dina la ko wax loolu nag du ma ko liggéey ba mu agsi fii ma di ko sànni di daw di tàmbaliwaat loo xam ne xaw ma fu mu jëm kon mën nañu jàpp ni bis tey daal Astou Gueye dellu siwaat na si ci ginnaaw Cheikh